asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal di sàkku ci yéen tamit ñaan dellu soir nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko tey taxaw seetlu bi mu ngi jëm ci parti bi ñuy wax euh, APR wala ñenn ñi di ko wax Benno Bokk Yaakaar euh, dafa am tuuti loo xamante ci réew mi ñoom dañuy fàtte ne ñoo Sénégalais yi ñoo ko bokk muy jëmmi lépp loo xamante ni danoo wax ne ab Sénégalais bu nekk am nga ci sañ-sañ wala sart yi ku ko matal am nga sañ-sañ ci ñu jox la mbir moom wala nga dem ci mbir moom wala jongante boobu euh, ñu gis ne ñoom waa Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni. ku mel ni Ousmane Sonko mi daf mel ni dañ koo boole wut ci réew mi wala dañ ko yéene wut mu am dara ci réew mi wala mu doon ilif dara ci réew mi te mbir yooyu nag kut ci seen loxo ñoom waa Benno Bokk Yaakaar waaye ci loxoy askan wi la nekk ginnaaw loxoy sun borom tabaaraka wa taala ci askan wi la nekk muy popul bi peuple bi nag li nu fi am ñoom li fi waa Benno Bokk Yaakaar am li la fi keneen am li la fi Ousmane Sonko am ñoom buñ fàtte ne fi ñu jaar ak Ousmane Sonko nit mënu koo jaar ak nit ba noppi te taxawut nag wan la ne ëppale woo ci réew mi Ousmane songo dafa nekkoon koo xam ne day liggéey ci benn fonction ci état bi ñuy wax li nga xam ne moo di impôt domaine nekk fa ay ati at yoo xamante ni lam fay am lépp daf koy jël ngir yóbbu ca këram di ko terloo di ca dimbali ñam ca mën a dimbali ci ay sénégalais ak i bokk jullitam ñu xëy benn bis dàq ko ki njëkk siñaale signalé kàddu googu bokk na Moustapha Diakhaté mii ñuy wax te bokkoon ci benn Benno Bokk Yaakaar te xawma seen yaakaar nu mujj def moom ba mu génn ci yaakaar ja moo njëkk a wax ne na Amadou Ba jël some pour ñu dàq kii nga xam ne moo di Moussa Ousmane Sonko ñu jëkki-jëkki daal di koy dàq-dàq googu xool leen mbokk yi na ku nekk émancé muy kuy jullit ak ku du jullit na ñëpp émancé koo xam ne da doon liggéey soldam lu mu néew néew nee na àggoon na quatre cent mille mu mën caa terlu di ca dundal boppam di ca dund nga xëy kooku nga ne ko sa sold bii dañ ko arrêté dagg nañ ko kooko yoroon ci lu toll ci njaboot lu mu néew yoroon na ñaari soxna ak ay njabootam kooku ñu xëy xëy dagg soldam boobu sëñ bi mu war a def lan lan la war a defaat dafa war a dem di yenu ay saaku ceeb wala muy dem di def di mine baru wala boog mu jóge fi sax lu nekk man koo dal boppam mën a talbatiku wala dara yooyu yëpp yàlla dimbali ko di ko defal sutura mu toog noonu euh, kooku nan nga ko mën a def kooku ki la def loolu nan nga ko mën a def lan mooy sa xalaat ci moom te lim la ko defee defewu la ko ci bu fekkoon ne daan na daa luubal alal wala dafa jalgati nangam wala dafa def nangam wala dafa def fa faa def loo xamante ni nangu ko waaye dafa ne rek day dénoncer liñ fiy def jaarut yoon rek ñu ne ko lu tax nga koy def loolu bokk ci mbir mi ba noppi di kii bokk ci mbir mi kay mooy saa boo gisee kuy jalbati nga siñaale ko loolu mooy bokk ci mbir mi dëgg ñu ànd ak moom noonu ginnaaw bi mu doon fi député jóge fi doon maire doon fi kii doon fi nag opposant bi gën a nekk léegi moom rek lañ fiy tudd léegi sax ay opposant amatu fi dan naa Ousmane Sonko Macky Sall léegi ñoom ñu dem ba Ousmane Sonko boo ko tuddee ak ci waa APR koo mën a doon ñu ne la moom ñenn ñi ne ay robel la ñenn ñi am na ñu koy jiiñ lool ñenn ñi wax nay wax ci robel yi Mimi Touré nee na na wax digganteem ak robel yi mosu cee wax ma ne ko du ci wax dara nan ko ci laaj ma ne ko mën du ma ko laaj dara ndax loolu suñu yoon nekku ci mën koy laaj yéen ñooñu la ñuy laaj lan moo xew foofu wala yéen la ñuy laaj bilan waaye Ousmane mu laaj ñu ñu mu xëy nekk fii ba jamono yi ñu toll ñu ne dañuy dem élection ñu ne ñoom seen liste dara fi ñu toll def nga ko léegi defoon nga Ousmane Sonko waxoon naa leen Ousmane Sonko léegi dafa nekkoon benn nit boo xam ne chef de parti la ngeen def ko chef de relais muy digle di tere di joxe ndigal di kii ba moom ci boppam di ngeen mu ne maa joxe ndigal ca nàngam te loolu ci chef de kii leen ko xamoon chef relais leen ko xamoon gis ngeen ne bërk dem bu moo fi joxewaat ne na bu juróom-ñeenti waxtu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi àllarba nag ku nekk yor ay kubéeri cin mu tëgg ko wala ñu kalak sone nam ko waxe woon defee nañ ko noonu bi mu noppee sant naña ko doon def benn bi ci desaat mooy ñoom li nu waxoon ne Ablaye Wade da ko doon def Ablaye Wade dafa bëggal ngóor gi keneen dafa mel ni ñoom yéene wunu ngóor gi keneen ku bokkul ci ak parti APR mu yore ko te ne keneen ki koy xëccoog ñoom ab sénégalais la ñoom ñoo ci war a yem kon ñoom leen doon wax ne ab lay Ablaye Wade day doomam la fi bëgg a teg waaye ñoom ñii tamit seen waaye leen fi bëgg a teg benn seen teg wala seen xarit wala seen coppe wala dara ak ñii nu ci nguur gi ne nangam parti kii mii nu mu tuddati sëñ Mbacke Ndiaye mii bi mu dikkee Ablaye Wade dafa wax ne ñun ñëpp sunu sunu sunu sunu gañee ñun ñëpp ci kaso bi leen jëm wala ñun ñëpp dana nu def tëj ni nangam loola tax ba ci suuru bi ñu demee ba mag sàll gañe sax dafa wax déclaration ñu laaj ko mu ne gañewul gañewul nangam Abdoulaye di def déclaration wane ne gañe nañ ko ah, tey mu mën a ànd ak Macky Sall wala mu mën a nekk ci wetam ba ci Aïda Mbodj mi sama fàttaliku am na journaliste bu nekkoon RTS joxe information yi ne fii ci Bambey nangam na Abdoulaye Wade nag Aïda Mbodj mi doon journaliste boo xam ne mi ngi bokk ci RTS sax moom di joxe kii am waaye journaliste bokk ci RTS te ñu teg ko fa ngir mu war a joxe ay résultats yu leer yu wér te wóor mu joxe ko nga ne lu tax mu koy joxe ndax ci RTS la nekk nit ñi dañuy xool intérêt Sénégal bañ di xool seen intérêt bopp rek bañ di seen intérêt bopp euh, ñoom ñu jóge fi wala Ousmane Sonko gañe leen député wala ñaareelu wala nu mu tuddati présidentielle Ousmane Sonko toog fi ak Idrissa Seck toog fi ak keneen toog fi ñoo war a yem ndax ñoom ñëpp ay Sénégal buñ ko iñaane kenn ñoom i tamit kenn tànnloowu leen du waa APR lan tànnloo ki fi war a toog peuple bi lan tànnloo nan bàyyi peuple bi ñu tànn ñu organiser leen ay élection yu leer ñoom ñu dem woote ji bu nu wootee ka leen gënal ñu tànn ko bu dee même ci député yi nan bàyyi bun na Sénégalais yi wala APR na bëgg na ñun dañ fee bëgg am majorité Euh, opposition bi duñ ko fi am te ñoom ñaar nan leer na opposition bi ak APR ñoo yem ci sénégalais yi sénégalais yi kun fa bëgg nga ëppale kooku lan war a bàyyi mu ëpple waaye déet mu jaral leen ne leen faw opposition bi du fa ëppale waru faa ëppale ñun ñoo fa war a ëppale ndax lan yéen ñëpp sénégalais yi ngeen di liggéey man oustaz Sonko ëppale fa ngeen ëppale fa ñoo yem waaye bàyyi leen askan wi ñu tànnal seen bopp yéen waa APR nag moo mënu leen dañ leen a tegoon dénk leen ko ngeen doon xëccoo ñu jël leen ko teg leen ko fi kon kay yéen it bu ngeen di dem bu leen nu tànnal ne ni diw fi war a nekk wala bu ngeen di joxe maire yi diw sàngama war a nekk fii wala nangam doy na sëkk ci histoire ñu ne Ahmed Aïdara rakki président bu mu bokkal ndey ak baay wala bu mu bokkal moom la nu gañee moom la gañe jëlee ko foofa loolu victoire la boo xamante ni góom la boo xamante ni du wér légat la góom la boo xam du wér loolu histoire mi ngi koy soog a nettali koo xam yor nga mooy yor lépp nangam te yéen da ngeen yéen yor mini Sankoba mii doon na ko wax yéen a yor justice yéen a yor police yéen a yor nangam yéen a yoroon xaalis bi yor banque yor yépp waaye taxul ngeen kañe Géejawaay loolu du du kii bi kon nanu bàyyi nit ñi lii lépp day def sondage Ahmed Aïdara ay dara tey li ko topp lii tey ful bii fa am loolu lépp day wane rek ne nit ñi mere nan ñi euh, nu mu tuddati Benno Bokk Yaakaar mere nañ leen te ñoom ci seen bopp sax yàpp naa ne fi nu toll mbir yi nii muy gën di dem di gën di dem ñoom ci seen biir dañuy gën di xeex APR di ko gën di xeex ni waa Touba defoon fii nga xam ne élection yi fi amoon waa Touba ci boppam ñoo doon xeex Matar Matar Diop min fi tegoon léegi ci kanam tuuti waa APR ci boppam ñooy xeex seen bopp ñoom seen bopp ñooy xeex di jàppale Ousmane Sonko wala di jàppale opposant loolu nag euh, day àgg foo xamante ni nit ki waru faa àgg ci nguur. ngoor gi moom ku lekk war naa xam ne benn sénégalais boo xam ne amul benn sant wala ne wax askan wut ne ba ban koy tabax ñu ne askan sàngama wala sant sàngama wala xeet sàngam déedéet dañ koo taxa boo ko tabaxoon ngir sénégalais yi képp koo xamante ni dem nga ba sénégalais yi wóolu la am ci yow confiance ñu teg la fa kon nag bu leen tànnal kenn bàyyi leen bu nu waxee ne diw sàngam ngeen ne diw fitna léegi maa ngi gis Thérèse Faye mi ñu invité ko ci euh, émission nu mu tuddati bi Euh, muy wax ne Ousmane Sonko dafa mel ni defoon na fi nit 14 morts fi ñu demaat 3 morts fi ba fii ñu toll kii bi mu fi woote woon tëgg bi affaire concert bi euh, day bañ a wax lu ko leerut waaye jàpp na am na ñu fi mort dafa mel ni Ousmane Sonko ay mort daf ko neex wala nangam. déedéet neexu ko de neexu ko de neexu ko benn yoon amul ko neex ndax moor yi bu dee perte moo ci ndax fële ngeen jàppee Ousmane neexu ko kon léegi li am mooy nit ki nag wax dëgg yàlla boo ko sësee ba ci miir bi xamoo ban élan lay jël ban élan lay jël waxoon naa fii ne gaynde gi dafa ñëw ci benn dëkk mu fekk nit ñi nekk ci pénc mi mu dàq leen ku nekk daw dugg sa néeg sa kër bi nu duggee mu ñëwaat toog ci pénc mi di leen xaar pour ñu génn loola na xam ne heure bu nit ñi génn dootuñu ti nag léegi ay ay yat yooyu waaye ay yat ak jaasi lépp la ñuy génn ndax nit ñi mënunoo ñàkk bañ a ñëw ci pénc mi ñoo bañ ñàkk ñëw ci pénc mi moo tax gaynde gi bu amoon xel bi mu leen dàqee ñu daw dugg seen kër moom day génn dem kuy dikk waaye nag léegi kuy dikk dangay génne waale lu fi jëlee gaynde gi mbir mi ne dafa mel ni loolu la xaw a méngool mooy fi mu toll nun ko fi jëlee ci te jële boobu du benn euh, solution bu dul élection yi dem ñu ñëpp génn musiquement woote tëgg bi ñu doon Ousmane Sonko am na ci lu leer wala amu ci waa Touba moom xam nañ ko moom gone yi dëkk Touba yépp quinze heures xaw ma dix génn dem Mbàkke yor seeni bool ngir fas ginnaaw Touba dañ ne duñ fa tëgg te booba waa APR Touba yi ñu ngi leen bëggoon a defal benn kalan far yàlla loola yàlla génnee leen ci yàlla mi nga xam ne moo mën a leeral mbir ñu bëggoon bu demee ba waxtu julli jot waa APR jaar foofu ci jumaa ji wër waaye li ma ko waxee woon ku ëpp ti bokk mënoo koo jëw yàlla dogal loola ñu yëg ko Ousmane ne waa Touba bokkuñu ci ndax dëkk boobu dëkk bu sell nàngam dëkk bi nag na ngeen yëg ne fii ñu toll fii ci Touba moom Ablaye Wade dafi nekkoon jëlee nañ ko fi Idrissa Seck lan fi tegoon 2019 jëlee nañ ko léegi moom Ousmane Sonko moom moom moom dëkk bi moom <laughs> te amu ci benn coono moom nekku sax di dikk di waaye amu fi benn coono waaye dañuy wax ne nit.